suñu presse à la présentation Aïchatou Ba dalleen ak jàmm li yéen i kay xëy tey jii di session extraordinaire ba ñu woote foofule ci assemblée nationale à nomination Aminata Touré ak retour de parquet ñu ñu jàpp ne rek dañoo bokk ci faatup Aziz Dabala gatsa gatsa foofule ci assemblée national yéen i kay bile di Walfadjri daal di xëyee tey jile dellusiwaat si majorité bi nga xamante ni ànd ñu benn yoon ak dissolution bu au conseil des collectivités territoriales ak conseil économique social et environnemental Bougane Gueye di xam ne foofu feneen lañ

Sonko moom itam addu ci li mel muy xam ne ci jamono bi nga xamante ne ñu ngi waajal amal session boobule ni ki ëllëg ñi nga xamante ne nag ñoom ñoo di député yu féete ci coalition a ànd ci bu président Bassirou Diomaye Faye convocation bu bureau bu assemblée nationale ñu ni rek moom moo jëm ci fànn woowule ancien député bile di Alioune Souaré moom daal di xam ne ne gis convocation yéeni kay bilee di source a moom a dellu si waat ci kii Thierno Alassane Sall ak Bougane Gueye Dany nga xamante ni yëkkati nañ seen kàddu jëmale ko ca coow la am foofule ca ONAS diggante Cheikh Tidiane Dièye ak Cheikh Dieng ñuy xam ne ne kii di Cheikh Tidiane Dièye amul benn sañ rek ba nga xamante ni rek war naa dugg di lëj li nga xamante ni rek moo ñeel contrat yu ONAS yéeni kay bilee di la Soleil moom a dellu si ci séddale ndox mi fii ci réewub Sénégal ak décision ya nga xamante ni nguurub Sénégal jël na ko ci mu nekk na ak financement bu toll ci mille six cent vingt sept milliards ci suñu koppar yu ñu war a jëmale ko ci comité d' bu transfert ndox mi fii ci Sénégal ki nga xamante ni rek ah, moom moo di premier ministre di Ousmane Sonko di xam ne lu jëm ci wàllu wowule warul am rek la nga xamante ni moom moo di xaaj ak seen jëm si njëgub ndox mi le yéene kaay bi le di bés bi le jour dellu si waat si renégociation contrat yi nga xamante ni rek moom moo ñeel wàllub électrification ASER a daal di renégocier waat contra yooyu li mu am lu toll si Euh, village ya nga xamante ni rek dañ ko war a électrifier wuuteeg 1500 ya nga xamante ni euh, moo nekkoon euh, ca contrat bu njëkk ba yéenekaay bile di tribune a dellu dox ba nga xamante ni coowal fiscalité dox na seen diggante mu toll ci 41 milliards bu franc CFA Woodside yóbbu ki nga xamante ni rek moom moo di état bu Sénégal foofule ci yoon loolu nag yéenekaay bile di tribune dade addu ci li ni mel yéenekaay bile di libération moom dellu siwaat ci faat xamante ni far nañ ko Aziz am di Nabou Leye ak ñamu àndal boo mooy wul mi dina gën a métti si seen wat ndax la nga xamante ni rek moom la ñuy sàkk mu di ñu décerner leen ab mandat de dépôt laataa rek ñuy tab juge buy àtte bile mbir ak nga xamante ni nag moom moo di Fallou Diop ma nga xamante ni ñu ngi ko doon wër papam rek moo ko mujj yóbbu foofule ca division des investigations criminelles beneen yéenekaay bu àddu ci li ni mel mu di a bile di l'observateur dellu dellusiwaat ci li nga xamante ni moomu di lënt lënt yi am ci boobule dossier détail ya nga xamante ni dox na diggante procureur ak ñu jàpp ñoo faat Aziz Dabala mandat de dépôt ya nga xamante ni a sàkku nañ ñu jox ko ña nga xamante ni rek ñoom la ñu tuumaal faatub Aziz Dabala yéene kaay bile di réew mi quotidien moom dellusiwaat ci beneen jéey bi am aniki démb foofule ca Grand Yoff ab taximan rek a ñu daal di faat ab bal ndax rek bëggoon protéger ab ndaw ba ñu a moom indi ab dossier jagleel ko lu jëm ci wàllub technologie jafe-jafe yi mu mën a indil way jëfandiku yi téléphone portable dem ba mel ni ab drogue ci ña nga xamante ni rek ñoom ñoo koy faral di jëfandiku yéenekaay bi di record moom dellu si waat ci qualification Coupe d'Afrique 2025 Boulaye Dia ma nga xamante ni daanaka dellu si waat na ci stade yi ndax rek Aliou Cissé dana ko woowaat ci liste bi nga xamante ni war na ko joxe ajuma bi ñu dëgmal yéenekaay bi lee àdduwaat itam ca forme ba nga xamante ni joueur Sénégal yi am nañ ko a diggante kii di Sadio Mané nga xamante ni ab passeur la ak Iliman Ndiaye ma nga xamante ne ni ki démb lakk na caax bu njëkk foofule ca Everton. suñu presse vous est offert par Air Sénégal.